di leen jaajafal bu baax yéen suñu internet di leen nuyu di kontaan jano gi yéen chaque jour nee naa leen mbégte bi nag mooy di leen indil li gën a fës ci bopp xibaar yi ci noonu nag damay nuyu ñi ma feggoo leen daal di ànd jukkil leen li gën a fës mbay nuyu naa la Ndeye Mbacke fay naa la maa ngi nuyu bu baax suñu xarit yi ñu ngi topp ci Leewtoo TV waaye tey moom carton rouge laa lay jox weeru koor gi ak sa xotti ko xotteeku yu bëri yi nii xanaa tey tey bi ngay ñëw sa li tisi bi daa motul sa muuraay bi ndaw na xool leen xool leen bi lii lii mooy muuraay bi dañuy jaxase àdduna diin ak jamono la garaaw sponsor <laughs> bee wàcc. <laughs> doy na waar. Assane Waalo nuyu naa la. Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ak ñoom. xam naa ña nga naan bàyyil muuraayu jaamur. bilaay di nga ko bàyyi Alioune Alioune Ngom waxal ci kii waay mu bàyyi ma jeudi 22 avril 2021 journal suñu lam ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk kii di Khalifa Dia ménager du troisième tigre de Fass lam ca xam ne nag mooy nee na kii di Gris Bordeaux du mbëru 50 millions du mbëru 60 millions la mu bëgg nag mooy ñu jox ko ci cachet yu mag a mag yi te mu ngi xam ne combat bi di dox ci diggante Lac de Guiers numéro 2 ak Gris Bordeaux lu jaadu la Mbaye Babacar Khalifa Dia moom mooy yëkkati yooyu le kàddu moom mooy ménageru Gris Bordeaux loolu la wax nee na mbërëm du mbëru cinquante million du mbëru soixante million nee na daal li mu bëgg mooy ñu jox ko ci kase yi nga xamante ne bii mooy kase yu duuni yemul foofu nee na combat bii ñuy ruumandaat ci diggante Gris Bordeaux ak Lac de Guiers la ba nga xamante ne bii combat bu logique la te amateur yi ñu ngi koy xaar di ko bàyyi xel Assane dëgg la Mbaye Babacar Khalifa Dia moom mooy manager manager troisième tigre de Fass mii di Gris Bordeaux comme ni nga ko waxee nee na Gris Bordeaux du mbëru 60 wala 50 millions nee na euh, cachet Gris Bordeaux war na weesu foofu. Mm-hmm. nee na looloo tax d'ailleurs euh, combat bi ñu doon waxaale ci diggante Gris Bordeaux ak euh, Balla Gaye 2 mujjul antu nee na également ko woo personnellement di ko waxtaa di ko wax waxu affiche boobu nee na peut-être Gaston dafa utiliser woon turu Gris Bordeaux rek pour am beneen mbër comme ni ko Ndeye Mbacke waxee nee na temps yëpp ñu ngi wax combat Gris Bordeaux Lac de Guiers 2 nee na combat boobu combat bu logique la. ca noonu dañuy dem fi nga fi xam ne mooy Yaxya Jóob Yékini 22 avril 2012 de avril 2021 9 ans ca ginnaaw lam jax lam doon xam ne nag mooy xawma daanu daan rek laa xam kii di Balla Gaye numéro 2 moo ko ma Mbaye Babacar. Yaxya Jóob Yékini juróom-ñeenti at ngi nii ba mu daanoo ak léegi. tey la am juróom-ñeenti at suñu làmb moo xëy fësal loolu le tey la am juróom-ñeenti at ba mu daanoo ba léegi eh, suñu làmb nag li mu xam le mooy ka mu ka ko daane woon moom mooy Balla Gaye Assane Malick Thiandoum Ngagne Diagne ak Lamine Samba ku ci nekk def na ci jàngat. dëgg la Mbaye Babacar 22 avril 2012 22 avril 2021 ji tey jii am na juróom-ñeenti at comme li nga ko waxee Yékini doon perte première euh, combat am bi mu doon am ci arène bi ndax yëkk Yékini def na 15 ans yoo xam ne nii euh, déggul muñal. mu amoon 19 euh, victoire benn nil waaye le 22 avril bi nga xam ne nii bu doon dajek euh, Balla Gaye 2 jour boobu la am première défaite am ci carrière am journal suñu mun nag revenu ci combat boobu jël ay journaliste ku mel ni Lamine Samba Ngagne Diagne ak Malick Thiandoum jox leen kàddu Ngagne Diagne moom li nga xam ne ne jour boobu Yékini était en fin de carrière nee euh, boobu défaite daf ko bettoon lool kii di Lamine Samba moom mi nga xam ne nii moom nee na je vais perdu la voix nee na voix bi daf ko pertoon ndax dafa jege woon événement bi de trop euh, kii di euh, Malick Thiandou ñoom nee na beaucoup voulaient voir Yékini tomber nee na ñu bëri dañu bëggoon euh, Yékini daanu ci jour boobu ndax dafa lëmbe woon làmb ji. loo ci mën di dégg Assane bésu daanu du bésu daan. exactement bésu defet du bésu ndam mukk ca noonu nag Ousmane Gandigal ak Alaaji Gaynde taxawal nag ka taxawal nag mooy Sidi Jaxate moo offrir belle affiche boobu noonu Baye Babacar Siri Jaxate promoteur bala nekk sa Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar ñu naan ko Jaxate Kabeyeri noonu la ko woykat bi waxee daa mel ni Jaxate Kabeyeri moom moo taxawal Alaaji Gaynde ak Ousmane Gandigal xam nañ ne barki démb taxawaloon na Ousmane Gandigal ak Safi Dieng Ousmane Gandigal am ndam mu joxaat ko beneen combat ci digganteem ak Alaaji Gaynde di combat ba nga xam ne waa Cees yëpp ñu nga koy bàyyi xel di ko xaar dëgg la Mbaye Babacar combat boobu le 11 avril bi passé la woon euh, Ousmane Gandigal nekk ci Grand Yoff doon dajeeg saa saafi jeen nga xam ne ci Thiès la dëkk Ousmane Gandigal dem fekk ko Thiès daane ko moo tax ginnaaw bi mu daane Sidi Jaxate taxawaaluwul daf ko joxaat euh, beneen euh, affiche moo tax mu tëgg moom ak digganteem ak euh, Alaaji Gaynde signature bi contrat bi nag mi ngi amoon mardi bi passé combat boobu ñu ngi ko prévoir mois de juin la ko Sidi Jaxate prévoir. mu mel ni Sidi Jaxate dafa def njeexaat foo foreb foo foreb foo foreb doom delloo fa. mi ngi noonu am na solo. teeloon nag drapeau du chef de l'état 21e édition lu CNG nag démb ca Kaolack dem nañ ngir càmbar bërëb ya Mbaye Babacar. fa ñu war a amele li nga xamante ne bii mooy jongante yi war a am ci drapeau chef de l'état ren mooy 21e édition bi maanaam ñaar fukkeelu yoon bi ak benn depuis ñuy taxawal jongante boobu ba léegi waa CNG nag démb dañoo demoon Kaolack Assane ngir xooli bërëb ya ñuy aman amale yooyu la yooyu lay jongante. dëgg la Mbaye Babacar drapeau du de l'état 21e édition le CNG en visite de terrain. Euh, hier à Kaolack nee na démb euh, waa CNG dañu demoon Kaolack euh, mission bi nag Bira Sène moom moo ko composé woon may sa Ndiaye ak njàmbe Diop xalifa Sow ñii ñoo demoon ci mission boobu nee na li ñu fa wuti woon moom moo ñu dem xooli infrastructure yi hôtelier yi hôtelières yi ak sportive yi maanaam xool arène bi wala stade bi ñuy dalelee affaire bi est-ce que méngoo na ak li ñu soxla dem également xool hôtel yi nga xam ne nii gan yi bu ñu foofu la ñuy dal foofu daal loolu daal mission bi euh, wuti woon ñu fàttali ne euh, drapeau du chef de l'État mi ngi am euh, vingt 28 au trente 30 mai 2021 foofu ci Kaolack. incha allah. ca noonu nag beneen combat bu taxaw te ki nga xam te ne mooy Adama Diarra yi koy taxawal mooy dox ci diggante mbay guy guy gi 95 ak ki nga xam te ne mooy rawaan mbay Babacar. guy gi 95 moo war a jëflante ak euh, rawaan asan na combat boobu di combat espoir mm-hmm. ndax ñaari mbër yi ay xele lan ya nga xamante ne bii ay yaakaaru làmb lan ki taxawal boobu le combat moom mooy euh, Ama Dia mm-hmm. Amadia moom moo def loolu ren nag moom mooy nekk première saison en tant que promoteur yàgg na ci làmb nag di jàppale ay promoteur mais ren dafa berwaaram nekk promoteur moo tax mu tëgg combat bi war a dox ci diggante guy gi quatre-vingt-quinze mi nga xam ne nii Mor Fadam la nekk ak rawan euh, mi nga xam ne nii Rock Énergie la nekk Amadia nag mi ngi fay wax nee ne euh, ñëw na war na ñëw ak euh, ay affiche yu bëri lii benn affiche rek la mais affiche bi également dina ko wutal date bu yàggul dara Rawane également àdduna ci combat bi ginnaaw bi mu taxawee nee ne dafa war a daane guy gi quatre-vingt-quinze pour relancer carrière ca noonu nag Diankala depuis Mauritanie lam xamle nag mooy neena li muy xaar mooy promoteur yi daal di koy jox combat bu tooyal xaftaanam daal di béggal ay supporters am Mbaye Babacar. Diankalaar yooyu la kàddu fële ca Mauritanie la ko yëkkatee xam ngeen jamono yi yëpp ma nga Mauritanie nee na mi ngi xaar promoteur contacter ko ngir mu mën a dellu dellusiwaat ci làmb ji mën a bégal ñi nga xamante ne bii ñooy ay fansam day Mbacké. dëgg la Mbaye Babacar jànqalaar nekk ci écurie Kër Massar mbooloo moom nag instant yii mi ngi Mauritanie lu mu fay def mooy day préparer bu baax a baax a baax pour que bu amee combat mën a daane adversaire am nee na instant bi nag promoteurs yi lay euh, déglu mi ngi entraîné promoteurs yi rek lay déglu ñu wutal ko combat pour que mu mën a ñëw euh, wane lim liggéey foofu ci euh, Mauritanie nee nag adversaire potentiel potentiel yi bëri na. Euh, ñi mu war a dajal ci làmb ji bari na donc ku ko ci jox rek moom pare na pour bëri. Alioune Ndour patron Sibassor production lam xam ne nag ci journal bi mooy lam bëgg mi mbébétam mooy mu jël làmb yóbbu ko fu mu mës a am Mbaye Babacar. Alioune Ndour moom moo jiite Sibassor production di promoteur ba nga xamante ni bii euh, promoteur la ba nga xam ne ñu bëri ñu koy bàyyi xel ba pare bëgg a yóbbu làmb fa nga xam ne nag mosu faa àgg Assane loolu mooy bëgg-bëggam nee na daal ambition mooy jël làmb yóbbu ko ci dëkk ya nga xamante ne bii kenn mosu faa dund làmb mu yóbbu fa làmb. dëgg la Mbaye Babacar Alioune ñu gën ko xam ci amateur mu bokkoon ci association bi ñu naan Amalda Amalda moom mooy amicale des amateurs. de lutte sans frappe et toute discipline assimilée moom nag euh, gannaaw bi nga ko xamee foofu jël na beneen voie mooy nekk promoteur euh, bi mu nekkee promoteur nag am na promoteur de li simple en plus tëgg na ay combat waaye leneen lan mooy objectif objectif am à mener la lutte là sa euh, ça n'existe pas maanaam yóbbu lutte simple foo xam ne nii dëkk yoo xam ne nii musu fa am jot na nag tëgg ay gala ndax dem na Ngocc dem na Gandiaye mi ngi waaj dem Dia war a dem Sibassor mais également war na tëgg beneen gala ci Kaolack. Balla Gaye numéro 2 Sa Thiès Zos et Garga Mbossé Boy Niang nag na famille boobu ku ci nekk problème ndax ba mu duggee ca kër ga Mbaye Babacar daal day ravagé ravagé ñaar yëpp. boo ke Boy ñaar moom bi nga xamante ne bii moom mooy càppaa coli gi ñu naan ko borom curuxu curuxu borom bu jeexee rek jeex na génn na benn slogan bu bees nag digganteem ak Tapha Tine xam naa dinañ ci ñëwaat ndax barki démb ban dajee Joal wax na ma ko euh, journal bi dafa xëy ñëw def jàngat ci Boy Niang yi ndax nee na Boy Niang euh, ñaari famille yi nga xamante ne bii mooy famille Ngom ak famille Sakho muy euh, Garga Garga Garga Mbossé numéro 2 Jos ak ki nga xamante ne bii mooy Balla Gaye ak Sa Thiès euh, Boy Niang dugg na ci ñaari famille yooyu am na lu mu jëflante ak ñoom Assane. dëgg la Mbaye Babacar Balla Gaye 2 et Sa Thiès Zoss et Garga Mbossé la petite histoire entre Boy Niang 2 et les familles Ngom et Sakho nee na Boy Niang 2 daal dafa am benn histoire entre euh, les familles Sakho ak Ngom Sakho yooyu ñoom ñoom euh, Balla Gaye ak Sa ngoom yi moom mooy Zos ak euh, Garga boo ñaa nag dafa dajeek euh, ñeenti mbër yi ndax euh, daje naag Zos daje naag Garga Mbossé daje naag Sa war a dajeek également Balla Gaye moom nag moom moo daane Garga Mbossé ak Sa Thiès Zos daane ko mu war a jaafaar jàkkaarloog ak Balla Gaye maanaam daal benn histoire la am entre ñaari famille yi bëre nak rek bëreeg mag Uh-huh. na mooy doo am jig jigéen rek fee moom 1 0 la ko amoon. <laughs> yow lan nga bëgg mu am ci. dama ko wax sama yëngu <laughs> mu ngi noonu journal record nag lañ jëm ginnaaw ba ñaari mbër yi ku ci nekk am combat. jëm ci uh-huh. beneen combat. Uh-huh. Boy Niang numéro 2 Balla Gaye 4 hypothèses yi record daal tëral ak conséquences yi ndax ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi war a bëre kii mu ngi war a bëre B52 de Mbour. kee mu ngi war a bëri Tapha Tine Mbaye Babacar. ñoom ñaar ku ci nekk ku ci nekk eh, ñeenti ñeenti mbir ñu ngi lay xaar Assane kii Balla Gaye Balla Gaye war na bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, booy Niang euh, wante tafaatin tamit war na bëre ak ki nga xamante ne bii euh, moom mooy booy Niang tafaatin bu bëree ak Boy ñaa ba pare Balla Gaye bu bëree ak Bombardier ba pare asal foofu lan moo fa lan moo leen di xaar. dëgg la Mbaye Babacar abu Ndour moom moo def étude boobu ci record dafa def benn jàngat ci diggante Balla gay 2 ak Boy Niang ndax ñoom ñaar ku nekk déjà am nga benn adversaire euh, Balla Gaye war na dajeek Bombardier euh, Boy Niang 2 war na daje Tapha Tine nee na nag ñoom ñaar bu ginnaaw bi euh, defee seen ñaari combat yooyu dañu war a daje waaye nee na Balla ak Boy Niang 2 bu ñu dajee quatre hypothèses moo fa mën a am ak ay seeni conséquences mm-hmm. nee na Balla ak Boy Niang bu dee dañoo gagné ñoom seen combat bi final lay nekk bu dee euh, Balla euh, Boy Niang dañoo perte euh, seen combat bi kenn amatul droit perte ndax da ngay tegale kon ñaari défaite nee na bu dee Balla dafa gagné Boy Niang perte obligation de réussir lay nekk ci Pikinois bi nee na bu boobaa Boy Niang day am obligation de victoire bu dee nag Balla dafa perte Boy Niang gagné nee na Balla moom day survie la nekk day mise carrière am ci làmb ji. sa xarit moo def boobu la jàngat. abu abu nduur borom record. mu nekk papier bu neex boo xam ne nii euh, étudié na euh, kaay bu baax a baax. macha allah xam ne ñeenti yooyu noonu mënuñ cee génn benn foog benn am ci. Mm-hmm. ca noonu nag trois galas trois vainqueurs différent huit millions cinq cent. Keere Jax nag dafa nekk buuru gaal gi daal di fay teg tànk Mbaye Babacar. Jax la ba nga xam ne ci lutte simple lay yëngu. mbër yi bëri ci lutte simple yu bëri nag xàmmee ko record dafa ñëw tey bind ci moom nee na ñetti gala la tëgg foofu ca terrain gaal gi mu am ñetti vain mu am ñetti vainqueur ya nga xamante ne bii bokkuñu ma nga fa tegoon nag juróom-ñetti million ak li nga xamante ne bii mooy genn wàll loolu la tegaloon mbër ci ñetti gala yi amoon foofu ci terrain gaal gi. dëgg la euh, day tëgg lutte avec frappe sax mais. ci lutte avec lit euh, simple bi lañ ko gën a xàmmee. Euh, oh. terrain gaal gi nag ren dafa mel ni moom moo ko moom ndax def na fa trois gala euh, gala yooyu trois vainqueurs la am mais ci trois gala yooyu teg na fa huit millions cinq cent mille nee na premier gala bi mi ngi ko tegoon la dimanche vingt et un mars mille vingt et un mm, gala boobu mi ngi misé woon deux millions cinq cent général Malika moo fa daane finaal caaka fay. deuxième gala bi mi ngi am le dimanche 28 mars boobu 3 millions la tegoon Zambala moo fa daane Obali euh, Ibou Ndiaye ñu ko xam ci Obali troisième gala bi mi ngi xewoon le 11 avril boobu également 3 millions la tegoon Ada Dieng moo fa daane woon final Libidor quatrième gala bi muy teg xanaa moom Bamba mooy jël final bi <laughs> non moom daa am ñaari mbër moom moo maane ak beneen gayan bu kii bi <laughs> tur wee tur wee màgg nag moo tax bëgg mu di ko tudd ci làmb <laughs> muy noonu maa ngi leen di jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci boobu xibaar yi mbax xanaa jaajëfal ñëpp dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm di jaajëfal bu baax a baax kebe jaxara borom borom borom bii moom xam na bii quoi bii jaajëf kebe waaw <laughs> ay code la quoi asan léegi nag di remercier di remercier Mbaye Babacar di remercier internetu Leewtoo TV Yacine Fall ak équipe bu Leewtoo TV yëpp leen jox dig daje suba ak jàmm incha mooy mu noonu nag dina leen naa torop torop torop jano ak yéen chaque jour ngi leen di gën a fës ci noonu damay gërëm sama caméra woman bi rek Fama jaajëfee naa la bu baax Bilal kontaan ci yow Bamba sama sën bi bëggee naa la lu bëree bëri bëri Kébé. Kébé maa ngi lay nuyu bu baax gis naa la nuyu naa la Yacine Fall kontaan naa ci yow moom moo maa ne sama chauffeur bi loo dawul rek bëgguma sama ñaari jigéen yi mën góor gi nag Aïda ak Fama ak Matu maa ngi leen di nuyu bu baax baax den jaajëfal di nuyu suñu gan di kontaan ci moom lool lool lool leen jox di daje ëllëg ci Leewtoo TV incha allah